yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu an qadimi xayri al mursalin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi lay di nuyu lu bari lool sëriñ Pap di leen siyaara bu baax di nuyu bokki ndar yëpp di jiital ci nuyu bi jëwriñ ji nga xam ne moo jiite liggéey bi di sëriñ Madika ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bii di ahlul xidma di leen sant bu baax di leen gërëm ci liñ weesu lépp waaye nag di leen santaat itam tey jii ci jëf ju am solo ji nga xam ne jëfaat ngeen ko te jëfoon ko fii ne ni daaw te mooy hadiya yu am solo yi nga xam ne eh, andi ngeen ko fii ci jumaa ji eh, li ci gën a sedd sama xol nag mooy kere ba ñu àndee ñëw fii mu ñëw fi di siyaara si ñu ànd ñëw fii am ñuy jëbbale seen liggéey mu la ma wax ne ma sëñ bi day man lii bu soobee yàlla fas naa yéene su ma delloo danaa wax taaliba yi fa nekk yëpp ñu fànnoo ko at mu jot ñu wut luñ ci barkeeloo di ko fi indi diggante bi gàttoon na lool waaye daaw mu indi ci lim bu am solo yaakaar na yow mi yaa ko andi woon ànd ak sëñ ma faal mi ak soxnaawa ak ñi ngeen àndaloon ren ji itam bi ñuy jub koor gi mu ne ma ah sëñ bi de lañ defoon daaw ñu ngi ci dañoo bëgg nga laat ñu ñu am lu kawe la amewoon daaw ba biig mu woo ma ne ma da ngeen xëy si indi liggéey bi yaakaar naa liggéey bi ba mu ñëwee lam ci doon ñaan am na ko te mooy mu kawe loolu daaw la te mbirum sëñ Tuubaa nag noonu demee jàpp nañ ne waxtu wu ne itam day gën a yokk kon nag ñu ngi leen di sant bu baax sëñ Abdou Lahad di leen seereel liggéey bi ak sëñ Fallou ak ñi ngeen fi teewal ñëpp ne leen wax ne indi nañ fi lu toll ci 113 balay ñaari keesi madaar ñaari douzaine serpère ñaari keesi eau de Javel ak ñetti biteel ñaari douzaine peeli mbalit ñaari ak benn douzaine satala ak sasa yu mag yu omo yi andi nañ ci lu juróom-ñett kon nag ñu defal leen ko ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi te ñaanal leen suñu borom mi nga xam ne dara taw ko te mu digg li mu digge itam ci barab bu mel ni ku koy dundal ak itam Sëñ Tuubaa nga xam ne moo tax ñuy jëf te moom itam am pay te ku ko li may faral set ne lu ngeen gis ci barab lu mu rëy rëy rëy rëy xëy muñ xëyaloon Sëñ mu nangu wala ngont muñ ko gontaloon mu nangu rek la ku xamoon ngont mooma nag wala bés wala xëy mooma da danga koy dàkk ginaa xamoo ko nag da ngay def saa boo xëyee di xëy ci moom saa gonte di gont ci moom ndax nga dajeeg xëy ma mbaa nga dajeeg ngont ma nga xam ne ci la jërë jëf ci ji te bu ci amee rek sa aajo yi adduna ak sa aajo yi àllaaxira yëpp day faju kon nag lii ñu ngi koy jël di ko dugal ci liggéey bi tur bii ñu leen tànnal itam di ahlul xidma dañ koy barkeeloo ci loolu sëriñ Tuubaa waxoon ci masalikul jinaan wa xiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawa wal xumma naada munaaji ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumaruuna lil jinaani musrain bi yuqaal lahum umdul janna bi xayri mihnatin wa xayri fitna yàlla ne lañ ko yàlla defal te mooy bu yowmal xiyaam jotee ba ñu jël siraat gàcc ko ci kaw jahannama ñun ñëpp tiit ñëpp jaaxle yàlla day daa di sàkk benn kàddu goo xam ne day woote ne ay na ahlul xidma ana ahlul bu boobaa nag ku ca bokkul du mën a wuyu su boobaa ñu wuyu ñoom ñëpp ñu ne leen yéen woy leen ajjana ca kaw du ngeen dajeeg benn coono du ngeen dajeeg benn fitna yéene leen jëf loole nag ci liggéey suñ Tuubaa bi moo tax ñu sàkkal leen tur woowu muy tur woo xam ne tur bu barkeel la tey ñaan barkeb tur wi euh, dal ci seen kaw te dal ci suñ kaw ñun ñëpp kon nag sëriñ bi mu jox la nga jëbbale liggéey bi sëriñ Abdul Ahad tont la wax waxtu jege na. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw ah, di jéggulu ci kàddu yi may yëkkati. ci ginnaaw kàddu yi sama kilifa sama bunt sunu bunt ñun ñi nga xam ne tey tànn nañu loo xam ne nii ñun de xam nañ ko bu baax yàlla na ko ñëpp xam nañ ko xamee e, loolu nag yéene la te see yéene suñu borom da koy fay rek waaw li ngeen nu yéene li ngeen nu yéene yow laat bu sa yow yaay sunu bunt lii nuy def nii poñetu àddina leen ko kii mais yow daal lépp luñ fi def lépp loo xam ne nii ma dikkee def na ko ndax moom xam naa ne lu ma wax loolu la wax lépp loo xamante ni def nañ ko fii dañ ko def ngir jàppale la ci liggéey sëriñ Touba bi nga xam ne ni yow yaa ngi ci bunt bi nun amunul lenn lu ñuy defal kenn lu dul jàppale la sa liggéey xam nañ ne buñ la jàppalee bu soobee suñu borom li li Serigne Touba bëgg dañ ko dina ko am waaw nun dañ defuñ lu dul jàppale la defuñu lu dul jàppale noo ngi sa ginnaaw lépp loo xamante ni nii soxla nga ko ci dikke koo gis ci ñun boo ko waxee bu soobee suñu borom dina ci dinañ ci jot bu soobee bu soobee yàlla lépp loo xam ne mën nañ ko ci dinañ ci teg suñu tànk waaw noo ngi jégalu nag ci kàddu yi mënuñu wax ndax suñu xool dafa sedd guy ndax xam na nañu tur bi nga nu tànnal te yéene nga ko tànne te suñu borom yéene lay fay te fii nu ko waxee nii daaw nekk ni daaw ren mu fekk nu fi ñaan yàlla bu nii mu ëpp fii waaw soxna sii nag noo koy masow ndax jigéen la waaye euh, góor gu baax koo gis rek am na jigéen bu mat ci wetam waaw noo ngi leen di jégalu nag noo ngi si ginnaaw laat nun amul lu ñuy wax waaw xanaa defal ñu def bàyyil nu bàyyi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ahlu xidma ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Pape Touré ak sëriñ Mafal Seck ak jë sëriñ Madike Gueye ak Soxna Aw Fall ak sëriñ Assane Fall ak mboolem ñu ñu àndal liggéey ba ñëpp ñu ngi leen nuyu ci turu sëriñ Xaafiya bu sa imaam yi nga xam ne mooy jiital daayira Muxaddamatul Xidma te bu ñu leen nuyoo ci turam nuyu nañ leen ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy jawriñ liggéey bi ñu sant leen nañu leen daa sant daaw ak daaw jeeg ngeen seen pas-pas bu gën a am ci bàyyi xel liggéey jumaa ji ba fa ngeen nekk di ndar la sori sori ngi mel ne moo wuuf jumaa ji ndax dëkkin wu sori wi amu ci solo xol bu jege bi moo ci am solo te yéen seeni xol jegeel ngeen ko Serigne Touba jegeel ngeen ko jumaa ji ndax waxtu nekk yéen ni dajale jumtukaay yi ngeen fi dajale andi ko fi te muy jumtukaay yoo xam ne waxtu nekk ñëw na fi ñu ko soxla ndax ku ne xam na ne jumaa ji li ñuy daj ci lu mel ni saa bu ñu dogee ba noppi ba war a seetal barab bi jumtukaay yi lu mu gën a ñëw gën ci waxtu nekk la baaxee nag waaye waxtu yi ngeen ko indi waxtoom la kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax ci pas bi ngeen am ak yittewoo bi ngeen am ba waxtu nekk ngeen di jaaral di jokk Sëriñ Abdou Lahad nga xam ne jawriñ la ci liggéey bi ngir mu yombalal leen fi ngeen war a jaar waaye loolu lépp sant yàlla la ndox lu mu am yéene yéene liggéey jaaral leen ci yoon su ngeen amutoon passif ba du leen fa jaarale yéen lu ngeen bëggoon a bëggoon a jaar ci yoon te amul ku leen leen fa teg ci yoon wa du yomb kon nag ndokk bi yàlla dajalee ngeen am pas-pas bi te yàlla dogal seen buntu doon ku leen mën a teete jaaral leen ci yoon wi nga xam ne mën na leen dugal ci daayira bi kon nag ñu ngi leen di sant bu baax te xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma da ngeen gëm ne yéen ñooñu fa ngeen nekk ahlu xidma bànqaas ngeen ci biir daayira bi ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax baax te xam ne lépp loo xam ne ngi koy def muy màggal wala dara waxtu wu nekk rek nii rek la lépp lu ngeen xam ne lu baax la lu rafet la lu yàlla yelloog barab bi daayira baa ngi leen tàllal loxo di leen ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla suñu borom mii faj aajo yi fajal leen seeni aajo te fajal leen suñuy aajo yi may ñu yokk ak wér ak fan gudd ba liñ yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu def ko ni ñu ko bëggee ci bàkki Seexul Xadim ñi ngi leen di sant sant mënta weesu sant sant nañ leen gërëm nañ leen ndax ñu liggéey moom seere rek kalañ ci waaye borom barag bii moom moom liggéey bi te bu ko nanguwutoon du ngeen dox jóge ndar ba yegg si ñëw ci toog fii ci digg ci digg jumaa ji di jébbalib liggéeyam nangum ko nangu moo tax ngeen jé bagage yi benn wadut ci yoon wi lépp tànku ba yegsi waaye bu bu fekkente ne doon toll lu mu nangu liggéey bi du yegsi sàmm gi ngeen ko sàmm te sàmme ko Pastef ak dogu àndoo ñu jëbbal si ko nii mooy war ne sëriñ bi nangu na liggéey bi defal ko ci jumaam ji ne may baaxoo wax nag waxtu nekk rek barab bi moom du du la ci sëñ du mas a jeex ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci nëbb duutoo feeñ yéen nag aw ngeen yoonu waxtu nekk di ci feeñal seen xol Sëriñ Tuubaa mi mii mi jàppale jàppale suñu borom mi feeñal yàlla leen feeñal ci bàkki Seexul Xadiim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu